أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه ku amoon kaseeti jawhar yu njëkk yi al jawharu nafis mu seetlu ne bu tolloo ci fen am na bayit woo xam ne dama ko boole woon ci bayiti sëriñ bi te sëriñ bi waxu ko daa bokk ci bayiti kam doon nettali ay waxam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 lii mooy téereb sëriñ Tuubaa bi tudd al jawharun nafis dafa fekk al axdar yi bi nga xamee ne abdurahman al axdar yi moo ko taalifoon mu nekkoon wesar moom nag mu soppi ko way al axdar yi boobu nag téere bu ràññu ko boo xam ne mel ne ne mag ñi daanañ ci tàmbaleem njàng mbaa daanañ ko gaaw a jàng boo ko seetloo nee nañ bunt bi rekk laata muy àgg ci tudd mbirum laab la mu tàmbalee ci bunt bi rek andi na ci fukk ak yett yoo xam ne mu kàllaf te ko war a xam te jëfe ko waru gar la mu war a sàmmoonteel tudd na fa it ñaar fukk juróom-ñaar yoo xam ne lu ca nekk lu araam la lu mu kàllaf war moytu kem kàttanam bu ñu seetloo it al axdari yi bunt ba mujj andi dañ koy tuddee albaabu attaan yi na mu yaatoo ci wàllu juum ci julleeg xeet yi demee noonu daanaka amul benn téere bu ni mel ba ci téere yu mag yi sax mel ni muxtasar xalil ni ko al axdar yi indee ni indee bunt boobu muxtasar xalil indi ko noona al axdar yi moo ci gën a yaatu gën caa fis gën caa ràññiku bu baax a baax sëñ bi it noonu la koy toppee indee ko ni ko al axdar yi indee te leen lu ci nekk mu leeral ko ba mu leer lool yokk caa yokk ba mu gën a yaatu ndax noonu la aada woo def ci mboolem taalif yi mel noonu nga xam ne day fekk kenn wesaroon moom mu soppi ko way day yaatala yaatal leerala leeral ba nga xamee ne rek la muy indi dana ëpp lool la téereb cosaan ba indi woon téere bi fii la tàmbalee mubaarakul ibtidaai lii lu ñu barkeelu tàmbali la maymuunul intihaai tey lu ñu barkeelu mat bismillahi ci tudd tur yàlla lay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewle xéewal yu dijjiya arrahiimi yàlla ki aji xéewle xéewal yu sew ya wasalla yal na dool yi tedd nga allahu yàlla ala sayidina sunu sang muhammadin muhammad nabiyihi kadib yonanteem wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak ay saxaabaam wa te mu dool leen wóolu tasliman dolli wóolu man nga ne ba tey wa sallama te mu musal leen tasliman ak musal dafa tàmbalee mubaarakul ibtidaa maymuunul intihaa mel na day ñaan yàlla def téere bi tàmbali bi lépp di barke ba ca mat ga lépp di barke daldi di bind bismillahi rahmaani rahim li muy tekki mooy maa ngi tàmbalee turu yàlla mi nga xam ne mooy boroom yërmaande ci yaatu ji daj ñépp bu dee fii ci àdduna ba ñuy weddee kay mooy sax mu leen di yërëm ak xéewal di boroom yërmande ji jagoo ca ñu gëmoon bu dee foofee ca àllaaxira teg ci julli ci yonante bi ñaan yàlla dolli ko teraanga dolli ko mucc ak jàmm dolli ko it mbokkam yi ak saxaabaam ya allahumma yow buur bi aslih yàlla na nga yéwénal ummata muhammadin xeetu muhammad sàllaa yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla allahi ci moom wasallama te mu dolli ko wóolu allahumma yow buur bi farrij yàlla na nga wuññi njàqare mooy yàlla na nga teggi tiis xan ummati muhammadin walis xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma yow buur bi irham yàlla na nga yërëm ummata muhammadin xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaw naka dananu sàkku sa ndimbal yaa moo aynu yow kii aji dimbalee wabika te ci yow rek nastainu la sàkku ndimbal laa xawla amul benn xeetu pexe buy tee mooy wala quwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illa billahi ndare muy nekk ci yàlla al aliyi yàlla mi aji kawe al azimi yàlla ki aji màgg xasbuna doy nanu allahu yàlla wa ni'mate baax na wala wa ni'mati amul moroom al wakiilu yàlla mi nu wakiirlu maanaam yàlla mi wékk suñuy mbir dafa njëkk ñaan ne sunu boroom xeetu yonante bi ñoom ñëpp yàlla nga yéwénal seeni mbir ba tey mbooleem xeetu yonante yàlla nga tegg seen tiis mbooleem xeetu yonante bi yàlla yàlla na nga leen dolli yërmande wax jooju nag du wax ju cosaanoo ci moom da koo bind foofu rek muy ak ñaan mu teg ci sunu boroom noo ngi sàkku sa ndimbal ndax xam nañ ne yow rekk yaa amee ndimbal yaa mën a ku bokk te yow rek ab jaam la bu lottalot xamut mënut sañut yow na nga boole xam lépp man lépp sañ lépp kon ci yow rek la ñuy sàkku ndimal bu teg ci it laa xawla wala quwata illa billah maanaam jaam amul menn pexe mu mën a def ba sori ak mooy amul it genn kàttan gu mën a jàpp ba topp yàlla na mu bëggee lu may yàllaa ko ci dimbali rek waaye jaam moom amul pexe amul kàttan xasbunallahu wa ni'mal wakiil li muy tekki mooy nun day doyloo nañ yàlla wékku ko sunuy mbir te yàlla moom ku ko doyloo wékku ko say mbir doyloo nga te gën doy te gën a mata wékk ay bir xaala wax na alfaqiru aji aajoo ci yàlla ibnu xabibin doomi xabibullah ahmadu turam ahmadu bamba dafa njëkk a xamle boppam ni ko taalifkat yi daan defee mu ne moom day koo xam ne yàlla rek a ko ñor mu tudd Ahmadou bàmba di doomi Habibullah fekk na Habibullah yi nag mooy maamam ju njëkk ndax mooy waajuru maam Mor waaye nag jekki-jekki ne maay doomi diwte diw moomee di sa maam waxin la woo xam ne yonente bi sax sallallahu alayhi wa alihi wa defoon na ko ne ana abdil muttalib ahmadu dana sant rabbal wara borom bindeefi xamdan cant ya doomu kook dana sax musalliyan mbir mu may aji julli alal faqihi ci aji dégg ja diine alhaadi kay aji jubal muhammadin te mooy muhammad wa kulli zijtihaadin ak képp kuy boroomu farlu eh, maa ngi tàmbalee ci sant yàlla cant gu amut fu muy yem di julli ci ki nga xam ne moo xamoon diine te yàllaa ko ko xamaloon ne ko itam nga woote mu daal woote daa teg nit ñi ci yoonu yàlla te mooy Muhammad mi ngi ñaan yàlla dolli ko teraanga dolli teraanga itam képp koo xam ne rek farlu nga ba gëm tey jéema aw ca yoon wa rawante na mbokkam ya ko gëmoon ak saxaabaam yaag ña ca toppoon tey rafetal ak ña ci toppaat tey rafetal bu bis ñoom ñëpp yàlla na yàlla dolli leen teraanga ak jàmm haza jàppal li wa inna nii naka man saraftu walbati naa xam ni sama yitte li xaq di nadril axdari yi ko ci fas wesaru al di ab sang li kay yakkuuna ngir mu nekk tux fatan di ak may li kulli man ñëw képp koo xam ne araada namoon na muy bëggoon na xifdahu ak mokkalam mi nabb naa ay zamani ci doomi jamono moo ottadiran mbir mu mooy aji dogal ngànt maanaam ñàkk a yedd tey jégloo ko balu li kulli xibarin ñeel jëpp fóore di adabin kuy boroom teggiin xabiiri naxwin kuy aji xam naxwu wa arodin ak arod wa adabin ak luxa gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi mu ne li ma tax a jóg nag mooy way li nga xamee ne moom la al axdar yi wesaroon wesarul axdar yi moom laa taxaw temm ci soppi ko woy ndax woy daa gën a yomba mokkal dama bëgg su ma ko soppee woy waa jamono ji ku ci bëggoon a mokkal wesar wa tam jafe mokkal ci yow way wi daal di yomba mokkal ci yow mu ne maa ngi jéglu nag boroom xam-xam yi nga xam ne matale nañu fànni xam-xam yi buñ gisee ci sa taalif bii lu mat a defar nañ junj ca pegg ba xamal ma ne ma nangam kat nangam nga wax waaye nangam moo fi gënoon a yell mbaa nangam la war a doon wala da ko wax wax yun woyof loog toroxlu wa asalu danaa ñaan allah yàlla rab yi koy sama boroom alqabula nangu ga wal xaw na ak ndimmal la wa tawfiqa ak dëppali ga wal wusool ak àgg ga wa an yakuna ak mu nekk raxata sigaari di noflaayu ndaw ña wa man ak képp koo xam ne ixtaaja aajowoo na loxoo jëm ci moom minal kibaari ca mag ña sa maytuhoo tudde naa ko it bil jawhari ci wurus an nafiisi wuy aji sell wala wuy aji gànjaru gànjaru mooy foor rek fi xaq di nasril axdar yi ci fas wesaru al axdar yi mbaa nga ne ci way wesaru al axdar yi ar rais kay kilifa ne bala maa tàmbal dëgg-dëgg nag ma dellu ñaan yàlla mu nangul ma may ma ndimbal ak tawfiq may mag àgg te defal ma téere bii muy téere boo xam ne gone yi toll ci jàng dañ cee amee nooflaayub gaaw koo dégg gaaw koo mokkal mag ñi koo ci xam ne sam njàng foofu rek la toll yàlla defal la ko noona mu neex a dégg ci yow lool neex a mokkal ci yow lool mu ne nag tudde naa téere bi al jawhar an nafis maanaam la boroom ak axdar yi wesaroon soppi naa ko way tudde ko nag aljawhar an nafis wurus wu gànjaroo gànjaru wurus wu foor a foor awwaluma jëkk ci la nga xam ne aw jabahu waral na ko arrahmaanu aji yërëme ji xatxaan ci lu dog maanaam ci lu amul werante xalal mukallafi ci mukallaf al imaanu moo di gëm foofu nag fi la waxi téere bi dëgg-dëgg tàmbalee mukallaf bu dee ci at bu dee ci yoonu Malik mooy ko am fukki at ak juróom-ñett fukk ak juróom nag siiw na ci wax borom xam-xam yi waaye bu dee ci yoonu Malik moom bu dee ci at mu kàllaf mooy ko am fukki at ak juróom-ñett bu fekkee doful xawuta dofe te am lim boobu ci at dal nay kàllafe ba tey sax kawaruk naq wala am mànniyu tegtal la ci kàllafe bu dee jigéen nit gis baax walla ëmb lu ci nekk tegtalu kàllafe la mu ne nag ku dem ba kàllafe moom bu fekkee fekkutoon mu xam naka lay gëme yàlla boroomam la ko njëkk war mooy mu taxaw temm ci xam na muy gëme boroomam ak rek na muy gëmee lépp li war a gëm ci lislaam fekk na gëm ci lislaam nag moom day lu jàppandi lool lool ndax juróom-benn yi nga xam ni mooy yàlla ci boppam ak malaakaam yi ak téere yu wàcce ak yonante yi ak bis pénc ak dogal juróom-benn yi boo ko gëmee rek daal ngay am gëm ci lislaam te yooyu yomb naa takk wax nañ ko ci ay téere yu bare bari ba tey nag koo xam lool da koy jafe say boro mu jàpp ne yàlla am na delluwul fenn te du yem fenn melawoona lépp lu di ak mat te dara ci matadi jegewu ko ku bokkut ak moom it moo la sàkk rek nga di ab jaamam koo xam ne teqale gëm da koy xaw a jafe mën naa jàpp noonu rek su ko defee nag di wéy ca kanam xolam gën di leer gëmam gën di mat tu mata maarifatuma topp xam la nga xam ne yuslixu dana yëwee nale bii ci moom fara idal xay ni faratay jëmm jamihan boole seen fanta bi na yeewu ka xukmi saw mi niki àtteb koor wa tahaaratin ak laab salaatin ak julli fardan moo xam day farata wa naflan ak naafila wa ka xajjin ak niki aj wa zakaatin ak natt mukallaf su fexee ba xam na war gëme ci lislaam daa war a farlu itam fi saasa ba xam lépp lu mënta ñàkk xam ci mbirum diineem xam-xam ci lislaam tey ñaari wàll wàll goo xam ne farata la mooy rek li ko yàlla sant te farate jëmmali ci moom mooy kenn mënu ko caa wéyaale bu ñëpp defoon ba mu des moom it day mel ne rek defut loolu na taxaw temm ci xam ko sañu caa song leen te fekkul mu xam ko mel na jul yi juróom bis bu ne mu ñëw juróomi yoon kon war naa xam lépp lu bokk ci laab gaag def ga ci boppam ba mu sotti nañ ko ko sante waru caa umpale dara lu mel ne cër yi ko yàlla dénk itam am am lu mu ko ci sant am lu mu ko ci aay itam war naa daal di xam li ko yàlla aay ci cër yi ak lu mu ko ci sant ndax mën caa taxaw ndegamit li ci ëpp nit moom faaw rek ci wàllu àdduna muy wut tàgguteef boo xam ne ca lay mën a dunde kon mu kàllaf mu ne war naa xam bu baax a baax la mu yënguti ci àdduna di ci wut wërsëg moo xam métier la moo xam jaay ak jënd la moo xam bay laag yu ko nuru lépp lu ci aju rek mu xam ko ba di ci aw fa mu war aw te bañ a jàdd di dugg ci lu araam mbaa lu ñu sib mbaa lu lënt liy farata ci xam-xam daal mooy lépp lu mu toll ci bindam rek na ko xam bu wér su ko xamut taman koo seetal boppam ci téere yu wér yi baax na su ko mënut mu laaj ko ku xam te maandu mu xamal ko ko waaye mu kàllaf mu di ab julit mu di ab taalibe sañu te jekki-jekki songu menn mbir te dafa xam la ca lislaam wax moo xam mbirum àdduna la moo xam mbirum alaaxira la bu dee sax li yàlla sopp ci moom rek nga xam ne du farata ni ki xeeti julli naafila yi ak yu bare bari bala caa def lenn rek na ko xam bu baax a baax sañu caa song lenn te xamu ko lu mel ni aj màkka su ko dee bëgg def bala caa dugg rek na xam lépp lu ci aju bu amee alal joo xam ne asaka war na ca balaa génne asaka na xam lépp lu aju ci asaka ni ñu ko waxee daal moo gën a gàtt li mu toll ci dundam moo xam daa aju ci wàllug addunaam mbaa daa aju ci wàllug diineem ak alaxiraam boo ca song lenn te xamu ko loolu mooy farata ci xam-xam la ca des nag moom far bu kifaaya la bu ca ñenn ña taxawee rek mu doy mooy topp xam-xami diine yi di ko gëstu ba géeju ca ba nga xamee ne ku ko aajowoo ñëw ci yow nga xet li ko ca loolu bu ko ñenn ñi defee rek mu doy waaye nag dana aajowoo am ay benn benn yu ca taxaw yoo xam ne ku soxla ñëw ci ñoom waaye bu ko ñëpp bokkee bàyyi itam nag ñëpp bokk am bàkkaar tuma alayhi topp war na ci mukallaf ay yuhaafida muy wattoonte maanaam muy sàmmonte xalaa xuduudi rabbil xarshi ci daytali borom aras jàlla màgg na moom yàlla waxalaate mu kawe wa yàqi fa te muy taxaw xinda am ris yi fa ndigalam la wa nax yi si ak tereem nga wa añ yattoo ba ak muy tuub ku la ci bépp waxtu moo tarifan mbir muy aju tudd bàkkaar yu rabbi yi jëm ci boroomam subhanahu sorenal naa ko lépp li yoonul ci moom min qabli an yekkoona ci njëkk muy nekk saaqitan di aji mere xale yi ci moom fi zamani ci jamono te tàmbalee wax nag yi nga xam ne mukallaf bu ne war na cee taxaw bu baax a baax lam njëkk a tudd nag mooy mukallaf mi xam ne yàlla mi ko sàkk kat dana ko awal fii bul aw fii sañ nga lii sañoo lii defal lii bul def lii atte yàlla yooyu ak yoon yi mu xàll mukallaf bu ne war naa sàmmonteeg ñoom ba nga xamee ne bu ko yàlla digal lu ne ma nga ca su ko yàlla xoolee séen ko ca loo ko yàlla tere lu ne ma ngi koy sori ba nga xamee ne boroomam du ko xool mukk séen ko ca te itam nag mu kàllaf mu ne say boomu farataal tuub ci boppam ndax daanaka kenn ku amut lu muy tuub amut ëppante rek moo ci nekk waaye kenn ku ne lu dara jaam màgg-màgg am na lu muy tuub ba ci yonante yi sax dañ daan jégloo ko tuub ba ci ki gën ci mbindeef yi da daan jégguloo ko tuub fekk na yonante yi nag ak gaa yu baax yi aw ci seeni tànk moom la ñuy tuub seen màggug daraja moo tax ñu koy tuub nde bu doon ci nitu kese rek moom ay baax baax lay doon ay ngëneel lay doon waaye nag ab yonante ak yenn ci wàll yi dañuy àgg ci daraja joo xam ne la ñuy tuub bu dee ci ñoom bàkkaar la bu ci keneen nag muy ngën yëlëg yiwu rëy rëy mu ne nag mu kàllaf mu ne daa di tuub tey gaawe tuub ga di dell ci boroomam di nangu ne man maa tooñ saa bopp def lu ma wërta def mbaa ma wax ko di ñaan yàlla muy jéggal ko te bañ a yeexee tuub ga nag ba merum yàlla daanu ci kawam ndax bu ko yàlla meree mën naa wowal xolam sax ba nga xamee ne xol ba du jëmati ci tuub kon nag mu kàllaf mu toll nay tuub tey gaawe tuub ga bañ di ko yeexe wa min bokk na ci ay sartam moom tuub nadaamatul rëccu xalaamaa ci lépp loo xam ne faatahoo rawoon na ko man nga ne faat na ko minal maxaas yi ci ay moy mus jalan lu mu di doon wa niyatun ak yéene fiimaa la nga xam ne baq yi des na minal xumur ci dund xadama xaw di ñàkk a delloom nga li kullimaa jëm ci lépp loo xam ne yadurru dana lor wa an yakuna ak mu nekk taarikal xisiyaani di aji bàyyi mooy ga in ndem nekkoon na xaasiyan di aji mooy bila tawaanin ci ludul yeex wala laxoo débbi ñeel mu kàllaf taxirun yeexe aw tasa burun wala muñandiku am lu muy mu ñëkk a nekkandiku li taw ba tuub wala yaqoolu te du wax ne asbiru danaa muñ rek xataa hadaani ba mu jubal ma saaxibul xufraani borom njëggal ga fa inna zanaka lii alaamatul xidlaani màndargam gecc la maanaam màndargam ñàkk ndimbalul yàlla ak tawfiqam la maxa shaqaawati ànd akuk texee di warayinil xal bi ak tërëb xol indi naka man ahodu danaa muslu min huma ci yooyu yaar bi rabbi ci sama boroom dafa tudd tuub nag mu daal di wax sarti tuub mu ne bu fekkee li ngay tuub sa digganteeg sa boroom rek la am na ñetti sart mooy nga rëccu loolee nga xam ne moom nga jàdd te ab jaam daa war sax ci rafetal wërta ñaawal nga rëccu lool nag mooy yàlla googee tëral ko ci kaw ab jaam bu ñàkk solo ni man di mooy daal borom bu màggee nii rëy na lool ñaaw na lool dañuy bañ mu rëcc ci kaw rek bi ma defagul bàkkaar bi day amoon naa wér amoon naa jàmm amoon naa wërsëg bàkkaar bi tax na maa wéradi tax na maa ñàkk tax na maa ñàkk daraja fi nit ñi ak yu mel noonu dañuy bañ muy wéttule ngir seet wàllu bakkanam na seet digganteem ak boroomam ni boroomam màggee ak ni mu jàdd woon yoon di ko moy loolu lañu bëgg mu rëcc ko lool ba nga xamee ne bu démb doon teye moom xelam du xalaat def bakkaar boobee mbaa wax ko muy benn ñaareel bi mooy bu fekkee ne mi ngi woon ci mooy yàlla bu daal di koy bàyyi fa saasay saasa ndax bu ne day tuuba ko rëcc ba noppi fekk mu nekk ci moy te bàyyiwu ko day mel ne kon kuy reetaan yàlla nay moytu nag bu baax a baax dem bay bëgg wax loo xam ne xam na ne aay naa wax mel ne jëw la mbaa lu mel noonu mu ne na ma yàlla baal waaye nàngam nga xam ne fàttaliku na ne li muy bëgg a wax lu aay la waru koo wax te du tee rek mu ne na ma yàlla baal waaye nàngam nàngam loolu na koy moytu bu baax a baax ñetteel ba nag mooy mu yéene te dogu ci li ko dese ci dund du defati bakkaar bii du defati beneen bu ko yàlla nattoo nag ci doye di doomi aadama ak seytaane ba mu delluwaat ca bakkaar ba mbaa ci beneen tam bu mu ko tax a naagu na dellu rëccuwaat tuubaat def na mu defoon rek doonte bàkkaar bi dana ko def ci bis bi ay yooni yoon waaye saa yu ko defee rek tuub tuub gu mel ni dellu ci boromam na xam ne jéggal nañ ko na rafet njort te jàpp ne bu ca saxee yàlla mën na koo tawfiqale mu sori lépp luy xeetu bàkkaar sax ci lépp luy baax mu teg ci ne mu kàllaf nag warta am dara lu mu yéexee ci tuub mbaa lu mu cay néggandiku naa yàlla naragul rek ma baax waaye su ko naree rek mu baax yàlla naragul ma jub waaye bu ko naree rek ma jub ëpp naa wax ndax mbirum àddunaam si nanguwu ca loola li mu bëgg ci àdduna day taxaw tem ci di ko wut mu jaral ko lu ne te wër na ko ne bu neexee yàlla mu am ko ca fam toog te du jóg di ko wuti waaye du tee day sabablu day ñaan yàlla may ko ko ba tey bu ko dara mettee ni mu musiba day taxaw temm ci faj ko du ne rekk naa bàyyi bu soobee yàlla danaa wér yàlla rek moo naragul ma wér kon ni nga xamee ne bu wéradee taxaw temm ci faj ko bu ñàkkee taxaw temm ci lu koy tax am te du bàyyi yàlla rek day sabab lu boole ca wàllu diineem noonu la ci war a farloo taxawee ca noonu bu jàddee yoon daal di farlu ci tuub bu gàttaloo ci lañ ko sant mu yedd boppam jéem farlu ci lépp luñ ko digal ndax ne koo gis mu naa yàlla naragul rekk ma jub bu ko naree rek danaa jub xamal ne daa ñàkk tawfiq dafa ñàkk ndimbalul yàlla dafa mel ne xolam dafa tilim tilim koo xam ne àgg na ca dër kiis deltu gannaaw daanaka xaw na caa wees nga xam ne texee di gu mat sëkk gu amul àpp mel na ne dal na ko ba àggal bu ko yàlla dabaatalul rek texee dina faw kon nag naa rekk yàlla naragul ma jub bu ko naree rek ma jub moom ëpp naa xalaat lim tudd nag tërëb xol ak texee di moo tax mu musul leen ne ñaan yàlla saa boroom musal ma ci yaar yooyu nga xam ne kon bu dee bàkkaar bi diggante nit ak boromam rek la ñetti sart yi rek mooy sarti tuub ga rëccu bàkkaar boobee ak leen lu ma saweesu ci bakkaar te bu fekkee mi ngi woon ci mooy mu daal bàyyi mooy ga fa saasay saasa boole ci yéene nag lu yàgg-yàgg du defati bàkkaar boobu du defati beneen li feeg mu ngi dund ñetti sart yi mooy sarti tuub bu dee diggante jàmbeeg yàlla boromam rek bu tooñee nag moroomam nitam moom faw delloo tooñaange ga mbaamu jéggalu kooku ba kooku jéggal ko du ca mën a ñàkk moom lay bëgg wax nag ci bayit yi ci topp wa hakaza niki nii rabdul mazalimi delloo tooñaange ya jamihan mbir mu muy mboole seen yoo addu def na ko lim min shurutiha mu bokk ci ay sartam moom tuub indal mutii fa aji topp ja li annahu ngir naka moom fardun farata fa man tarakahoo koo xam ne bàyyi na ko mu xafifan mbir mu muy aji woyfal ko fa xadd xasaa kon mooy na malikahoo boroomam ba mu ne delloo tooñaange digganteem ak moroomam farata joo xam ne mënta ñàkk war na caa taxaw temm ku ko woyefal nag da nga jekk ci bis ba xam ne ëppoon naa woyefal ndax yàlla moom dafa mën a jéggale lool lu dox digganteem ak ab jaamam rek ndegam bokkaayu ko keneen mën na ko ko daal jéggal waaye nag nit moom dafa delloo tooñaange digganteem ak moroomam farata joo xam ne mënta ñàkk war na caa taxaw temm ku ko woyofal nag danga nga jëkk ci bis ba xam ne ëppoon naa woyofal ndax yàlla moom dafa mën a jéggale lool lu dox digganteem ak ab jaamam rek ndegam bokkaal yu ko keneen mën na ko ko daal di jéggal waaye nag nit moom dafa néew doole te bale jafe ko léeg-léeg rawante na buñ taxawee ca gisu pencoo ba kon ku amel kenn tooñaange da taxaw temm ci defar digganteem ak moom ba du ko ameelati jenn àq tumal mazalimu topp tooñaange ya ata dikk nañu xismay ni mbir mu ñuy ñaari xaaj am waalan ay alal enraban ak i der bi xëyri may ci lu dul fen fal dut na delloo al am waala àll ya lil arbaabi jëme ci seeni woroom in wujjudoo ndem fekkeef na leen ak dëhëra ci jamono bilar tiyaa bi njudul benn sikki sàkka tumma ida yu jadu topp ndem fekkeefu ci jamono fal yar kon na ko delloo li waarisihi jëm ci seen way donn bila tara dudin ci ludul deng dengi bila tara dudin ci ludul déng déngi tuma isaalam yu jadu topp ndéem fekkee fu leen ci jamono te tasaddaqa mu saraxe an hum walis ñoom bi xaa ci alal yooyee kazaniki nii xakaa la ko nettalee man ka nga xam ne xaqaqa dëggal na xaqaqa boobu mooy enquête gëstu masala yi rek xam-xam yi barañu leen bu baax a baax mu ne tooñ gi nit mën a tooñ moroom ma dafa def ñaari xaaj benn mu aju ci wàllu alal mbaa aju ci yàq ab der bu njëkk wax nag bu dee wàllu alal moom mooy gën a yomba defar ndax bu dee àqi jàmbur joo xam ne alal rek la su fa boroom nekkee da ngay fexe ba delloo ko alal ja te jégglu ko su fekkee ne boroom alal ja nekku fa génn àdduna nga seet ña nga xam ne ñoo ko war a donn nga jox leen alal ja su fekkee ne ña ko war a donn nekkuñu fa gisoo ca kenn nga saraxel ko ko yéene ko tuyaaba ja nga xam ni daal delloo alal moom moo gën a jàppandi wa yastaxillu dana sàkkoo daganlu mooy dana sàkkoo jéggalu ku la irudin bépp der akala bopp lekkoon na ko bi ribatin ci jëw aw xadfin wala xaste aw chatmin wala aw ŋàññ jalaawoo feeñ na in kaana ndem nekk na moom kooka xaadiran di aji teew wa ama in fuqida ndaal ndem ñàkkeef na ko fal yuksiran nay baril xayran yiw la an lëxoo ndax lee moom yajidu dana am chey an dara yu addi loolu dana mën a jooxe maanaam dana mën a fayee xàq kullihim àq képp ci ñoom bi ca moom mustaghfiran bi muy aji sàkku njéggal wal yarju te na yaakaar xafwa rabbihi jéggaluk boroomam bu dee nag tooñ gam tooñ moroomum nitam da di yàq ab der moom moo gën a jafe ay mbir ndax léeg-léeg ka nga yàq ab deram nekk fi te doo mën a jàkkaarloo mu ne ko maa yàqoon sab der ci nangam ak nangam waaye daal na taxaw temm ci képp kum yàqoon ab deram rek mu jéglu ko ne ko jéggal ma maa la tooñoon ni ki bu fekkee da koo jëwoon mbaa mu tuumaaloon ko ci ndox tànk caaxaan ni ki njaaloog mbaa lu ko nuru lu mu mën doon daal ndegam moom kooku déggoon na ko ba la ko cay naqari naqari ko ca na ko jéglu ba mu jéggal ko su dee nag kooku dégg ko woon te bu ko waxaatee dana ko naqari lool ba tukkal àddunaam baa bu dee julli sax amu naqar ba du teewlooti kon du ko ko mën a wax bu fekkee ne it kam yàqoon ab deram xës na génn àdduna mbaa sori na soriwaay boo xam ne mënta fexe ba jokkoonteeg moom jeex na kon du ko mën a jéggalooti xanaa rek baril aw yiw baril tuyaa ba nga xamee ne bu taseeg moom ëllëg ca àllaaxira fay ko rek mbaa yàlla gërëm ko ba fayal ko àq yooyu yëpp ndax yàlla mën naa gërëm ak jaamam ba fayal ko àq ya nga xam ne moom la séqoo nag doomi aadama yi ndax bu gisee jaam bi rëccu tuub tuub gu sell sell lépp lu mën a delloo ci àqi jaambur yi mu ngi koy jéem lam ci tëree yàlla mën na koo gërëm ba fayal ko ko jaam bi nag da ko wóor ne bu tooñee moroomam jaamam rek tooñale na boroomam boole ci ndax yàlla ci boppam moo njëkk a digle maandu ak ñàkk tooñ kenn kon nag ku tooñ moroomam jaamam rek xëtt na tereg yàlla mel ne kon xëtt na aqi boroom bi tooñ nag mbindeef moomee moo tax kon war nay jégalu bu baax a baax jégalu boroomam jégalu moroomam te yaakaar nag yàlla jéggal ko waxyu jufoo war na ci mukallaf ak wattoom al lisaana làmmiñ wa min fahshain ci aw ñaawteef wa min qabihil xawli ak ci aji boni wax wal miraay ak werante xaqiqatul xawli dëgg-dëggi wax al qabih ci di aji bon kulluma mooy jëpp wax joo xam ne tàkkoon da nga nekk gaa xayaa indi borom kersa minhu ci moom faala man na nga xam wajawazu daganal nañu tasrihahu ak wéralam maanaam ak xëppateem wax ko ci digg ba indal bali bi fa aji gàtt xel in kaana ndem nekk na laa yafhamu du dégg talwihan junj yu fii du ko dana jariñ xaqiqatul miraa yi dëgg-dëgg werante xindaman fa ka nga xam ne dara xam na juhóodu xaqin moo di di dëgg ba adama addu zahara ci gannaaw ba mu feeñee wa dafuhu akuk jiñam bi baatil ak neen wa baasin aku ay li kurhi qasdil jaahi ngir sib suufeel daraja maam ngir bañ ku suufeel darajaam indi naas yi fa nit ña day jaal di wax yi nga xamee ne waru mu kàllaf la benn muy lu war a def mbaa muy lu war a moytu bàyyi ko bu njëkk a tudd nag ñu war a sàmme aw làmmiñam bu noppee teg ci ni war a sàmme bëtam ndax sax ca kanam dana wax mu kàllaf mu ne ni war a sàmme cër yi juróom-ñaar waaye nag làmmiñ mi mu tàmbalee ak bët mi mu ci teg moom dañ caa raw moo tax mu ne kon mu kàllaf mu ne war nay sàmm làmmiñam bañ caa wax dara lu aay rawante na wax ju ñaaw walla werante nee nañu cër yëpp buñ xëyee dañuy wax làmmiñ ne ko làmmiñ góorgóorlu rek te jub yow daal boo jubee ñun cër yëpp daanu jub waaye boo dëngee rek ñun ñëpp nu dëng bu nee nag mu kàllaf mu ne war naa moytoo wax ci làmmiñam dara lu ñaaw war naa téye làmmiñam tam di ca moytoo werante da xamal nag lan mooy wax ju ñaaw ak lan mooy werante ba nga mën leen a moytu mu ne wax ju ñaaw moom mooy jëpp wax joo xam ne boo dee kuy rus maanaam ku am kersa rek da ko rusa wax jëpp wax joo rusa wax rek xamal ne rafetut ndax bu rafetoon doo ko rusa wax kon takk-takk bi ñuy xàmmee wax ju ñaaw te war koo moytu mooy rek jëpp wax joo xam ne daal bu koo ko dee rus bu ko waxee rek rus teewul nag nee na bu fekkee ka ñi waxal mënis ta ñàkk wax ak moom loola te xelam daa gàtt ba nga xamee ne boo ko liyaaree du ko xam faaw nga xàppati ci digg ba mu door koo xam su boobaa mën ngaa jaar ci digg ba wax wax leer nañ lu loola ñaaw-ñaaw du ca wàññi dara mel ne bu ñuy jàngale daañu ko misaal ci joteeg góor ak jigéen koy wax ci arab al wattu dañ koy wax rek laal noonu buñ koy jàngal ci téere yi dañ lay wax al wattu laal te jublu ci joteeg góor ak jigéen ci sawukaay buñ ko dee jàngal koo xam ne nag loo ko liyaar liyaar du ko mën a xam mënees mënees na ko wax kon ni ko wala fi waxe dëgg-dëgg waaye dañoo bëgg daal lépp lu aju ci buntu suuf ak buntu sawukaay ñu koy tegginal bañ caa wax lenn ci xappati lépp lu aju ci jote góor jigéen nit ñu di ko tegginal wax ko waxin rafet bañ a jaar ca digg ba mu teg ci werante ne la werante moom mooy xam ci sa xol ne lii mooy dëgg ba noppi nag teg ci sa tànk lu ñu wax rek nga wax teg ca fekk na wër na léew li ngay wax lépp ay caaxaan dong la aw ay dong lay indi te it bañ ku sippi sa daraja rek moo tax ngay wax lii waaye ci sa xol moom xam nga ne lii nga dégg mooy dëgg saa yoo xasee dégg dëgg ba noppi daal gàntu ko teg ci sa tànk jàllu di soow rek di yëy loolu werante la de sax ñàkk xam dëgg di ko gëstu bëgg dëgg feeñ ba nga topp ko ngir yàlla moom lu baax a baax la tuyaaba la wa min ihaanatin ak ci ak doyadal aw intihaarin wala gëdd li muslimin ñel ab julit aw sabbihi wala ak ngàññam bil aari ci gàccee wa mislu sii kem yii la tax wii fuhoo ak ragalloom tax wii fan ak ragalloo fii xëyri xaqi sharxi ci dul ak yoon laa tax yi fan bul jeng laakin naxoo waaye moom nag mu jaw wasul lu ñu daganal la xinda fuxoolil xiiri fa kuuy yi tànneef ya maanaam fa boroom xam-xam yu baax yi rekk rek fil xaddi ci géttan wa taasiri ak yar day jàll ci yi nga xamee ne mu mukaalaf da ko war a moytu ci làmmiñam mu ne bokk na ca muy gëdd mbokkum jullitam mbaa mu koy ŋàññ di ko teg gàcce mbaa mu di ko yabaka doya ci làmmiñam kenn ku ne mbokkum jullitam da ko war a wax aw yiw di ko ko ñaanal di ko wàqanteeg moom di ko moytoo gëdd mbaa mu di ko xas mbaa mu di ko yàpp ci aw làmmiñam lu araam la rawante na mu di ko jéem a xupp di ko ragalloo te fekk na jullit boobee deful dara luñ koy xuppee ka yeddee ka gëdd ak dara ne moom bu jàddee yoon sax faw mbokkum jullitam ci boppam moo koy delloo ci yoon wa bu dee luñ ko war a géttane ñu géttan ko bu dee luñ ko war a yare ñu yar ko ca géttan mooy loo xam ne lislaam ci boppam moo rëdd ci téere bi ne ku jàdd def nangam nañ ko def nangam at tansiir yar nag moom mooy jàdd yoon goo xam ne téere bi waxu ca dara ne ku ko def nañ ko def nangam nga xam ne àttekat ba ci boppam mooy seet lañ ko war a def rek mu def ko ko ñu tuddee ko ab yar ba boo liggéey du ko defati waxaay ko saa niki nii alyaminu giñ bi talaaxi ci pase mu luñ araamal la walay sa bit tifaaxin waaye dir muy nekk ci dëppoo li xabari nax yi ngir xibaarub tere ga anil yamini walis ngiñ ba xirq ci ak goreel wat talaax ak pase fi tab yi ni ca biral ga wa mu ni ataada ku baaxoo bi xaa ci ngiñ loolu ala parti bi ci tofsale fa innahu naka moom yakkoonu dana yàlla nekk zaata di boroom ak yar idi ngir lay sa yaxalifu déet di giñ bi kap ci lu mel ne ki pase wal xitqi ak goreel aadatan ci aada siwal fus saaxi ndare saay saay sa dafa jàll ci yi mu kàllaf war di moytu ci aw làmmiñam muy giñ ci fasi soxnaam wala giñ ci goreel ab jaamam ci jamono yi jaam amee passé day loo xam ne mboolem yi dagan moom la ci yàlla gën a bañ waaye nag su dee mënta ñàkk ku yebu def ko ndax am na ànd boo xam ne tàggoo ko ne dem moo ko tane waaye nag la ci addis ba aaye mooy jekki di ko waat ni ki di wax naa tey daal du ma génn kër gi waat naa ci yàlla suma ma génnee kër gi rek sama soxna si fase na ak yu demee noonu goreel ab jaam itam jamono yi jaam amee goreel ga ngir yàlla bokk na ci bari tuyaaba lool waaye moom itam addis ba daa aaye kenn di waat ci goreel ab jaamam ni ki mu ne tey daal moom kenn mënta fexe ba jëw waat naa ci yàlla suma ma jëwee rek sama jaam bi gore na lépp luy waat ci fase mbaa ci goreel ab jaam daal moom xëy na sax nun du sunu aada mel na ne na ko jullit bi di moytu na ko taalibe bi di moytu ndax laa taxlifu bi talaaqi wala bil xitaaqi fa innahuma min aymanil fusaq mu ne xibaar boobu tere yooyu yaar te waxe ko noonu moo tax ab julit rawatina ab taalibe war di moytoo waat ci làmmiñam lu mel noonu te nag ku ko saxoo di ko def rek mu ne ku ko defu xewet ñu war koo yar ba bu ëllëgee du ko defati nañ ko yare nag àttekat ba rekk moo koy seet lu ci yell mu def ko ko la tax itam mooy koo fekk muy waat ci fase soxnaam mbaa muy waat ci goreel ab jaamam kàccoor rek lay doon boo xam ne day ko lislaamam rafetut bu dee ab jullitit daal day ko ñaawu lislaam mooy faral di waat ci fase soxnaam mbaa goreel ab jaamam li tax mu ne muharramun wa laysa bittifaaqi mooy biñ ko aayee noonu daa am ñu wax ne aaye gi aayeg araamal la am ñu ne aaye gi aayeg sib rek la àggul ci araamal waxi buhoo war na ci mukallaf ak wattoom ba saraxoo jisam ba minal xaraami ci aji araam laa yam vuran bu mu xool maa loo xam ne lam ya jus daganut an yanzurahu mu xool ko ka nazarin niki xool bi nazaratin ci ab xooliin lil muslimi jëm ci ab julit tu viihi boobu dana ko lof laali faasix ni waxuñ jëm ci ab saay-saay aw mujrimin mbaa ab yéefër mujrim day firi aji tooñ waaye yéefër lañ ci jublu ba li fi nekk waajibun aji war la xàll ci moom maa ci la nga xam ne shuri xay yoonaleef na ko xijraanuhu ak tongam tong mooy jàmb bañ koo tudd bañ koo taas nasihatan ngir laabiire leer jiha ngir mu dellu dafa jàll ci bët te la bët day moom lu day waar la mu kàllaf mu ne war nay sàmm ay bëtam ba bañ caa xool bu wërta xool bokk na ci xool yi ñuy aaya nag muy xool mbokkum jullitam xool bu ñaaw boo xam ne bu ko kooku ne jàkk rek daal di xam ne moom mi ëmbalu ko aw yiw ab julit daa war a jàpp mbokkum julitam ne boppam ko def waaye waru koo xool nag xool bu ñaawee noonu bu dee nag kooku julit la waaye day kàccoor maanaam day def lu yàlla aaye te du ko làq-làqal da koy fisal ñi di ko gis wala muy ab yéefar ñooy ñaar moom du yem rek ci xool leen xool bu ñaawa ñaaw waaye dañ leen war a jàmbu ndax xëy na ku leen jàmbu ba ñu xat bu dee kàccoor baa dana tuub dellu ci rafetal bu dee yéefar ba dana xat ba tuub dugg ci lislaam nga xam ne képp koy jàmbu jàmbu goo xam ne ngir yàlla rek a tax jàmbu ga mën naa yàgg lool waaye nag bu dee jàmbu goo xam ne moom wàllu bakkan dong la daañu la ca may ñetti fan dong waaye doo ko sañ a weesu lislaam daa jàpp ni nit dana di mer ak a jàpp mer lum néew néew waaye nag ku mere moroom ma am lu ko naqari ca moom daal ba tax mu jàmb ko itam bu mu ko weesale ñetti fan te wàllu bakkanam dong la su ñetti fan ñi matee na ko daal di nuyu te defaroog moom nuyu ko jàmmanteeg moom daal di jeexal rek jàmbu ga bu dee na da koy jàmbu jàmbu goo xam ne moom yàlla rek tax tax daam lu mu koy aaye lu yàlla bañ te nanguwu koo bàyyi te mënu ci dara te daam lu mu koy digal ni ki julli te du ko def te mënu ci dara lu mel noonu mën na koo jàmbu jàmbu gu yàgg-yàgg ndax bëgg koo labiré bëgg mu xat rek ba bu dee jullit baa mu tuub dellu rafetal bu dee yéefar baa mu tuub dugg ci lislaam bokk ci waa lislaam wa mën a oo tere nañu an nadara xool li nisaa yi jigéen ña al ajnabiyaati ña di ay jaambur wakal xas ak niki aj rafet min kulli suuratin ci wépp melo wala ci bépp photo alal tidazin ci kaw bànneexu ka am rajo rijaali ni toyamu góor ña toyam toyam nag mooy koo xam ne saxagul sikkim faxdar na nga wattandiku haadi yile wa min hu bokk na ca itam nadratun xool xala xala ci xaarin ci kaw ak xeebeel kazaliki ni li tax wiifin ngir ragalloo awin tihaarin wala gëdd day jàll ci xool yi nga xam ne ñoo aay mu ne góor sañ ta xool jigéen joo xam ne jaambur la ci moom lu may rek kanam nga dong ak téng ya jigéen joo xam ne jàmbur la ci yow mooy koo xam ne araamu la ci sëy moo xam nag mi ngi sëy moo xam sëyut kooku la nga sañ gis ca moom mooy kanam nga ak téng ya kanam nga moom bu fekkee ragaloo ci xool ba fitna te it xooloo ko ngir bànneexu ca xool ba kon mën ngaa xool kanamam waaye nag moom jigéen ji itam war naa sàmmoonteeg bu dee génn mbaamu nekk foo xam ne ab jaambur bu góor mën naa dox ba yem ci moom mu sàng lépp yaramam ba mu des kanam gaag téng ya am na sax ñuy aaye xool kanam ga ci ñenn ñi ubbee waaye li ñu sukkandikoo daal ci gis-gisu Malik ak sax ñu bare bari ci borom xam-xam yi mooy jigéen ji sañ naa feeñal kanamam ak tengam bañ koo muur góor itam lu mu doon doon jaamur ci moom mën naa xool kanam nga ndegam ragalul ca xool ga fitna jublu ci itam bànneex bu dee nag jigéen ja dëgg na araamante araamante goo xam ne du yëy la kon danga mën a xool ba baat loos wa ak loxo yaag tànk ya nga xam ne jigéen ji bu nekkee koo xam ne góor la gum aramanteel aramante gu sardiwey mën naa bañ a muur kanamam ak baatam ak ay loxoom ak i tànkam mu ne itam bépp photo boo xam ne kooka mën na koo xool am ca bànneex bu koy taxa mooy yàlla araam na mu xool ko moo xam nag photo ba image boobee dañ koy feeñal ci tele wala ci théâtre wala ci journal yi mbaa ci mbedd yi moom daal lépp loo xam ne su ko xoolee rek mën na ko yóbbu ci mooy yàlla rek day araam mu xool ko moo xam góor la moo jigéen la ku ci nekk daal nay moytoo xool loo xam ne mën na ko yóbbu ci ci sax xale bu góor bu rafet boo xam ne saxul sikkim dañuy bañ góor gi moom di ko xool xoolu bànneexu ndax bu dee koy def yëf yi ngóor jigéen a yooyu mën naa am xelam nekk ca loola te sax nun loolu du suñuy mbir mel na ne xëy na waa taax yaag tubaab ya léegi daal la xaw a ci réew mi ba ñu ko fi tudd waaye ci cosaan daal moom mbirum ngóor jigéen demu fi woon noonu waaye nag léegi moom siiw na ba am ñu koy tuddoo di ko fésal ba tey itam jigéen bu defee ne bu xoolee xale bu góor bu rafetu noonu te saxagul sikkim mën na ko yóbbu ci jéem a mooy ak moom yàlla it ba tey kon na araam mu xool ko ndax lépp lu yóbboo ci mooy yàlla rek dañ koo war a wattandiku saa yu xoolee nag loo xam ne araam naa xool mu daal di bàyyi fa saasay saasa kenn ko bindal bàkkaar ca xool boobee waaye nag bu jàllee xool rek ñu bindal ko bàkkaar ba mu ne bokk na ci xool yi aay lool nag di xool sa mbokkum julit xoolub xeebeel mbaa xoolub gëddaate mbaa xoolub xuppaate ndax ni nga xamee làmmiñ mënees na caa xeebaate mënees na caa gëddaate mënees na caa xuppaate bëtit noonu la kon nag araam na ci ab julit muy xool mbokkum julitam xoolub xeeb mbaa xoolub gëdd mbaa xoolub xuppaate waaye daman dana la nga xam ne xadd xalaka alkoona bi ay nit ci bëtam kamar raïs ni ki nga xam kilifa ga kamar raïsu xadd xakaa net na ko wayus jëlu def na tëj almi ayaanu borom bët bu aay ba xay sus taxara fu fi siiwee bebbaru ci lor fii man si lii ci këram xi na wattu alxabara xibaar ba ku amee bët bu aay mooy koo xam ne yàlla def ay ci bëtam nga xam ne bu xoolee rek lam xool daldi sikk mbaamu yàqu yaxeet loolu yàllaa ko def daa am ayu bët ak ayu làmmiñ ci kaw dogalu yàlla kuñ xam ci moom nag ni moom mi yàlla def na ci moom ay bët ba lu xool rek loola asaru buñ ko xasee xàmmee dañ koy wax muy toog ci këram bañ a génn di xool yëfi jàmbur loolay ayubu ñu di ko ko topp naa ko fayal ndax yaa ko war a fay yaa ko xool bali ci xew xew ci borom bët bu aay boobu lépp lu xool ci bëtam ba mu asaru moo ko war a fay mu tekki ne kon dañ koy tëj ci këram ne ko bul génn del toog rek bala ngaa génn di lor sa mbokk yi jullit waaye daa mel ne ñoom dañ koo xamoon ci yooyu jamono man koo ràññeel waaye ñun suñu jamono ji daa mel ne mënunoo xàmmee borom bët bu aay ak borom bët bu aayut waaye àggoon na ci ñu xàmmee ko xàmmee goo xam ne addis ba sax day wane bu kenn xoolee kenn bët bu aay noonu ba dara dal kookee ñu xool ana nuñ koy defal faje ko ko mooy jàng ar risaal na ko gis ca mujj ga ak ci yeneen téere addis yi waxiw buhoo war na ci mu kàllaf watoom nga jabar yi cër ya albatnu te mooy biir lisaanun aku làmmiñ farjun ak pëy mooy sawukaay warjilaañi ak ñaari tànk waxay naani ak ñaari bët yeddaañi ak ñaari loxo saabihuha ak juróom ñaari la seen al ubnaani mooy ñaari nopp ña man raa ku sàmm laxaa ñeel leen an li ma aas yi walis ay mooy xaasa kon mu làq maanaam kon mu am rek xastan jub ajj ma xam mboolem jub indi ngir kullu xobbin bépp cër saax yoo sama àndaale min xaa ci cër yooyu xaabalat jàkkaarloo naag baabun bunt mi ne niiraani ca sawaree fiimaa ci la nga xam ne xadd sabata sax na wa kullu mënta képp koo xam ne xaafizaha wattu na leen laa yedd xulu du bunt ci bunt ya fiimaa la nga xam ne yun xalu def na ko toxal wa kullu xobbin bépp bopp mooy nga biha ak moom abadan faw tàddu xulu da tàbbi biha ànd ak moom baabaxaa buntam ba xadan ci ëllëg mu ne mukallaf mu ne war nay sàmm juróom-ñaari cër yi nga xam ne yàllaa ko ko dénk muy biir benn làmmiñ muy ñaar pëy sawkaay nga boole ci buntu suuf ndax manes naa mooy ci buntu suuf muy yett ñaari tànk nga wàññi leen benn ñaari bët nga wàññi leen benn ñaari loxo nga wàññi leen benn ñaar nopp nga wañu leen benn juróom-ñaari cër yi daal nee na kenn ku ne war na leen sàmm ba jëfal leen ci yàlla boroomam di ca moytoo jàddu yoon ku sàmm na juróom-ñaari cër yi ba moyoo ci yàlla xamal ne kon am nga lépp luy jub am nga lépp luy tawfiq tey ak ëllëg ndax ne benn cër bu ci nekk dafa am buntu sawara boo xam ne moom la jàkkaarloo ku sàmm cër yëpp yëpp mucc ci mboolem ci sawara yooyee koo xam ne nag yàlla nattoo na ko mooy ci benn cër su ko jéggalut ci bunt boobee lay duggee sawara ànd ak cër boobeeg léppam xam ne kon ku mooy yàlla ci benn cër ci cër yi rek te yàlla jéggalu ko ba am yërmandeeg tawfiq bunt ba jàkkaarloog cër boobee ca lay duggee sawara wa an yuhibba war na ci mukallaf muy sopp saxsan jëmm lil illaahi ngir buur bi dil anaami kay boroom mbindeef yi wa yubxida te mu koy bañ lëxoo ngir yàlla laa lil xotaami du ngir pañatum àdduna